yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu te leen siyaar deen bal aq deen bal aq jiital sunu nuyoo ak sunu siyaare ci ki nga xam ne moo fi nekk Sëriñ Tuubaa di cheikh mamadou muntaxa xafisahu llahu wa raxahu wa ataala baqahu di nuyu sunu kilifa bopp di sëriñ si Ahmadou Mbàkke mi nga xam ne moo nekk ci bopp kërub seex son bu Mbàkke ñu koy siyaare bu baax te di ko ndokkeel bu baax te di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko fi ci kanam mu njaboot gi dolli ak wéram ba lim bëgg a liggéeyal sunu waajur wa mu def ko ni mu ko bëggee di siyaare mboolem ay rakkam nga xam ne mooy njabootu Cheikh Souhaïbou di siyaare Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy def yebal di kenn ci ñun di sunu xarit di sunu lépp di feeñal Cheikh Souhaïbou Mbacké feeñ na sax moom waaye ni nga ko waxe bari nañu ko xamut ba muy toog dafa yàgg kon nag ngeen di feeñal ay meloom ak i jikkoom ak i jëfam ba nit ñi mën cee ñu lu am solo la Cheikh Sonia bu nag moom ñun mooy sunu lépp man moo ma tudd tudde ma Cheikh Sidi Muxtar ma di moom gaawaan ba matee jàng itam moo ma dalal arwaan ndiir soog maa jox sëriñ ji di mbàkki moom si Abdul Ahad boo fekk na yoratul ba ma ñëw moom fekk na yoratul daara ji di yor nit ñi di continuer waaye mu ngi mu ngi dégloo nag moom daanaka déglu tey mu déglu wet tey mu déglu nafar mu déglu bind waaye boobu nag yoratul kenn moom ci boppam yaakaar naa suñu Moustapha ak suñu Cheikh ñoo lu mujjee yor ci yor ngoo xam ne moom moo lay déglu lépp waaye man ba ma fay dem waaye teewul nag moo yor daara ji moo koy taxaw xam-xam itam moo ma ko dalal te te si xar sama kër yi sam sama soxna su njëkk moo ko tànn indi ko ci kër gi kon man dara gën moom suñ lépp te noonu moo ko defee ci man nag noonu loo ko defee ci sëriñ Cheikh def ko ci sëriñ Moustapha def ko ci sëriñ Fallou waaw ñun njaboot suñu Abdou Xadir ni ñu koy wax rek ku dut sëñ Moodu sëñ Saay bu mooy la tudd jabar sëñ Saay bi itam noonu ak la ku sëñ Seex sëñ bu Xaadir tudd lañ seen diggante doonoon kenn loolu ñu leen wax bokk gu ne ak xarit da ci am waaye ñoom doona doon ay xarit mu doole ko ci seen mu doole ko ci léppam suñ lépp sëñ bu Xaadir mosu ci dugg looy wax looy demal ci Cheikh Souhaïbou muy koo xam ne ku sonn ci nit ñi la rek man ba fay dem 69 laa fa dem booba waa Kër Sëñ Tuwaay laa fekk waa Kër Sëñ Abdoulaye nijaay kii ñoom sëñ Siidi rek Moxtaar sëñ Kiimaan ñëpp a foon jaboot Cheikh Abdoulaye booba ña nga fa jaboot Cheikh Saliou ña nga fa sëñ Bas boobu moo fa nekk jaboot Cheikh Mortala ña fa njabootu soxna moom mi ña nga fa njabootu soxna may mooy ña fa njabootu seex Moodu Fadal ña nga fa bu ñoom ñëpp ñu ci kër ga ak boorem doomi seex itam seeni doom fa la ko indi te lépp sëriñ sone metti ndax lii xaw ci njàngale boobu amut moom amu ko woon pause ñuy noppalu sëriñ sone bu jógee ci ba lay commencé daara bi bi buy fajar jotee amoon na sonal yi gis ñu sonal koor ba mu koy wut moom yee dongo moo ko taxoon wut te néeg baraage la ne woon moom lay bës pour muy yee dongo yi waaye du ci yem nag mu soog a jug nag yor ak mu dikkee nag comme fekk ngeen ne la rek ndox mi moom moo lay tëbal fajar bi boo lay commencé moom activité mu jàngale bi ni mu daa def itam dong yëpp ay nodd yarang di nodd di nodd ban di jeex mu def ab rëdd ca tànkam rëddaat beneen rëdd ña mag féete ca rëdd ba ca kaw toog soog a dugg jàkka ji nga gën a mag nag dugg ci biir jàkka ji ne ñëppay nodd julli bu jógee ci jàkka ca nag dugg na ci daa jëm xam ne leer gu sax ñu tàmbalee jàng amatu benn soxla du dem fenn kenn du ko seeti mu nekk ci biir dongo yi mu mu suba gis bu suba xawee naa mu tàmbalee déglu wet bu wet yi jeexee déglu na jeexee mu jublu ci bind loolu daa jàngale njàngaleem itam nag boo mokkalul moom amul bàyyi waaye boo nee xel tam nag balaa dix nga mën a jàngale yëpp yaa moom yaa moom sa bopp li bis bi noonu laa jàngale moom waaye boo na xeem xel tam nag ba ba minu onze guddi moom amu noppalu mu puus te toujours mi ngi toog amutul benn soxla amutul benn itte kenn du seet daara ji rek la ne woon di daaraam dawun jàng bind ci kayit alluwa la ñuy bind moo sëñ Modou Abdou sëñ Modou Mamadou Habib mi sëñ Jiili Mam Balla sëñ Blaat Son ñooñu sëñ Caawana ñoom ñooy bindal gone yi xam ne ku ci ne da ngay bind lu mat daana fukki aliw ak nangam yoo nga du fa jàng bind moom seen waxamu ko mokk arwaxaan wér tajwid nga leen daa jàng foofu hmm. ba xewagut si sax fii te noonu la daa jàngale mokkal bu wér ngay mokkal alxuraan ko jàng ndax ba nga koy mokkal di ko tari lu yàgg yàgg juróomi sib di tari fukki sib di tari ñaar fukki sib soog ko beq ca beq itam doo ko def benn yoon ca beq itam doo bind lu bari su mun ngay beq léeg du ko mat sax wala da jël temps bari nga beq ko mooy toppal nit ñi itam nag bu takku sax ne day dem ca penku bar penku barab bu ne woon ci biir moom sama maa ngi simb faa ngaa toog te laal fa lay indi ay yëpp ku yàq ko ne mu toppal la bu la toppalaay bu noppi sa àll nga dem jàng ko ñaar fukki yoon ñu fukki yoon ñaar mooy wax mooy wax nag la nga koy jàng daal waaye da dem fee toog mu jàkkaarloog yow nga jàngat lu toll noonu dërëd mokk moom xam na nga soog a tëj denc sa àll man maa ngi fàttaliku sama caméra bi ñaareel sax ba ba fan yii gis naa ko. ni ma doon jàngalee ni ñuy bind araf yi te loxoom la kii fan yii gis naa ko sama kii yi maanaam la xayin boo koy bind da def nii xayin moog laam alif ñoo bokk noo koy bind loolu daa wax bind ab sart ni sart man lay mel miim noonu la la jàngal miim itam mu ne la di koy dala ko daa jàngal moom bind bind da koo neexoon ku mën a bind da koo bëgg man dama la naan ma yow eh, da nga ko bëggul waaye kon ko man ngay doon xëy na man booba bind bi taxuma ñor lool sonn na ma ci loolu nag dama ci jàngal aw si bari bu moom yi bindal naan nii nii waaye koy bindee miim def sànnee nun bind ko ñoroon lool bëgg ko lool man ko lool tam nag hmm. nga bokk lépp da ci daa sonn lool alxames sax booy booy booy tàmbalee beqi day wut ku bindal ci bindu njëkk ba nga ko yore waaw loolu ngir bëgg moo tax ñu fa nekk daanaka ñëpp mën a bind ñëpp daa da koo ñoroon moom bind ku mën a bind hmm. noonu la daa yare nag daara ji li muy xum xum ku ne loolu nekk daa ko xam ci yàqutoon ci jaamu yàlla am dara bu yor yoree mu génn alxuraan bi keroog Tunis loolu laa jànge ko njàng mu dal soo ko delluwaat njàngale njàngale mi wird yi mu war a wird noonu takkusaane itam kër ga boo sang ay ay la fa teg xam ne ci lay sewrañee yi ñuy génn mu yor course gi dana taxaw fi lu mat quinze minutes di xool mbedd mi jóge fa déplacé demaat mbedd yëpp amoon na mool bu fa teg bu tolloog moom waxam bu ci taxawee itam fii lay am fenk bi nga xam ne boo boo mënut a xool lool da nga yaakaar ab xar la waaye noonu la meloon kër gi bu baax xam yëpp xam tànk yëpp la foo dugg dana xam ne di sàngam yaa fi jaar mënoon sonn ci ñoom lool tam nag daa leen taxaw ñëpp fonk wàllu wér-gu-yaram lool lool sax bu nawet masaa dikk day jënd nawakeen bu bare bare bare ndax boobu sibir yi dafa bari te boobu Tuubaa amul dispensaire sax Mbàkke ko am boo bàyyi kii sax ma nga Mbàkke ak docteur Fall ñoom waaye fajukaay waaye suba ku jot day jox mam bal la wala kenn mu jot sàll ndox dugal ko yëpp ci fi ñuy wax kees ku ndaw ga ndax am nga ñoom fu ndax kees bu màngoo gi jox kees gu ndaw ga keesu neex maye keesu xewar ga keesu dimbire keesu daqaar ga yëpp amoon na ci kër ga waaye boobu kees gu ndaw googu ci la ci la ñuy dugal mu ngi génn par kenn ku di ki ñu jox la ko wan na ko naan jàll ndax bu la ko joxee doo ko naan ndax xarit gi boobu waaye noonu laa def wax nawet yëpp noonu lay noonu lay warloo faj bi faj mi itam noonu la noonu la ci moom meroon ci ñëpp nag moom ndax booba da jël docteur yoo xam ne ay spécialiste lañ yoo xam ne dañuy jóge Dakar dimanche jot bu ndikkee Touba mboolem mbokk yi ku wér di daana boo amee wér di ko wax suñu mun la dimanche na nga ñëw boo dikkee mbool la docteur ba mu seet la bindal la ordonnance biir sa wax bi dafay defoon benn pharmacien bu ci biir kër gi di jënd garab di la bëndee bindee garab mu jox ko ñu xool ba xam am na ci pharmacien bu fa amee jox la ko bu amut mu dimbale loo ko jëndee wax social boobu insaan ijtimaahiya la woon yoo xam ne noonu la daal dimbalee nii xam ne ku wéradi rek da dem joom yëgal ko ko am na docteur ba ay docteur yu bari yoo xam ne dañ fi ñëw par ñi par weer ñi par ko defee boo ko waxee feebar ba kaman loola bu dikkee naan la bi sàngam na nga ñëw boo dikkee mu bon laak nga xam ne kooku fu dafa yendoo ba ngoon di consulter nit ñi la ne woon ku amul wëllëre docteur Fall Fall yaakaar naa moo yoroon sa waaye moo ne woon Mbakke ab tijaan la woon sax waaye daa doon wëllëre suñu son bi lool wëllëre boobu tax na bi mu génnee àdduna suñu son bi daa wax suñu Abdou Aziz na ko nan ma ko bàyyil ma denc ko fii suñu Abdou Aziz nangul ko ko indil bi ci boppam moo dem ci armée bi dugal te boobu ci boppam dugal ko ci biir armée boo demee ba ca moo bi doon loxoom itam ne docteur Fall nangam nangam la ci bind ba mool moo ko bind ba fi ne ma ci pare woon ci ko dencoon kóllëre am nga xam ne loolu bari na ñu ñu ñu ñu ko ñu nekk ci dëkk sax mënuñu am loolu mooy dikkal boppam jullee ko boppam dugg moom ci xamel denc kon xam loolu kóllëre la kon ku amoon wëllëre la ci diggante bi nit ñi ku mën a dimbalee itam la nag te ndimbalam nag kenn mënu ko xam ndax yàlla dogal na man jaar naa ca as mbëkk nekk tuuti yor naa fa maa nga si ba mo suñu son bi daa def ñun ñëpp daa ko ñu jàng ci yor bëkk ne yor yor bi magasin waaye li muy dimbalee bokk yi bala ma koo def nit ñi nit ñi tëdd day bàyyi ba nit ñu fatu sooba oto bi yebal oto bi def te la mu ci def ci fépp wala ceeb ak suukar nga ne boo demee ka koy jox duñ koy fëgg waa ñoom dëkkal duñu xam ne suñu son bi yónnee na fi waa kër gi duñu xam ne suñu yónnee na fi noonu la daa ku mënoon dimbale waaye bokk mi bokk yii daan leen dimbale lool di leen taxaw lool waaye nag mën ngaa nekk si kër sax doo ko yëg ndax ndax sutura daan leen ku amoon sutura ci boppam ci bëggul kenn xam lu muy def ku la jël ab temps ci gone yi la bu guddee moom ab doole daara gone yi fu ne ne fanaan waaye ndeysaan day jug mose day bàyyi ba guddi mu jug topp ëtt bi fu gone tëdd mu daan la yee nga tëri ca nga tëri ci néeg ba daal bàyyi kenn tëdd ci witti ngir lay bi ak dara di la fekk daa topp kër gépp di leen gis te li muy yenn yenn ci daara ji nag léeg-léeg bu guddee lay génn nag dem saare ji moom jumaa ja dugg ci armée yi ca jamono yooyee seeti bokk yi fi nekk yëpp ñaanal leen nga xam ne daanaka day fanaanee dox ci ay saare ci guddi gi ak bokki bokki bopp yi nga xam ne bëgg na leen gis ar boo leen gis déet si waat te bu fajaree boo xasee ba jóge ca jàkka ja moom ngi ci daara ci ba keroon nag gee ginnaaw gee amatul temps te booba kenn du ko set moom di seti kenn daara ji rek jàng jàng ak jàngale jàng ak jàngale rek la daa liggéeyee dundam bépp ci yar ak defar la ko def waaye bëgg xam-xam nag ak dimbalee dëkk bi bokk na ci li li ci ëpp solo mooy sëñ bi Mbàkke mi ngi indi ci dëkk bi ginnaaw yàlla sëñ bi ñëwee ci Tuubaa suñu sooy bokk fi indi bokk fi indi daggal ko foofu ci pencam mi kër ngir bëgg nit ñi ko jàng Alxuraan bu noppi mën a jàng ci mu xam-xam ndax booba ma nga woon bul Cheikh Amadou Basir moo ko yóbboon foofu mu fi jàngale ginnaaw bi ba indi ko fii mu koy jàngaleel nit ñi ndax ne ko jàngale waaye waxu waaye yëmatul ci moom nag dëkk bépp nag di ñëw ci sëñ bi di fa jàngale si loolu rek kenn amu payam ndax mboolem dëkk bi ñu fi jàng daanaka ñëpp jaar ci loxo si Abibu te loolu ci ndimbalul Cheikh Souhaïbou Mbacké la mu doon nit ku yaatu woon nag ku ubbi ko koo xam ne ñirut ay murit sa doon ko daan seet si suñu Abba Sall dafa daa ñëw di ko yend si suñu Adi Touré dafa daa ñëw di ko yend si buñ ñëw ndeysaan day jëli suñu Asan Buso ca Abibu wooyu suñu Cheikh Sey comme borom xam-xam yooyu ñu toog bokk nekk ci saal bi toog ci suuf jox waxtaan ci xam-xam rek ba ngoon bu julli jotee ñoom la yebal ñu julli jiite jàkka ji yooyu fi ñu Abbas Sall bu nekkee mooy jiite suñu auditeurs bu fi nekkee ñoom la yebal ñu jiite ñu wax ñu ne ñëpp dem julli ngir bëgg yaatal nga leen leen fii mooy seen kër kon noonu la bokk yëpp nag diggante ma waa ko Sëñ Tuubaa ñëpp ñëpp ñu fa daa fekk. ñëpp ndax tool bi mu nekkoon di ci bay day toll Sëriñ tubaab bi nga xam ne moom moom la moo moo ko gën a ñor ci tool yi muy jàng ak yar ca seenu njaboot ñoom ñëpp mu nekk leen ci moo taxoon ñoom ñëpp nag nanguloon nan ko muy toog ñu koy fekk si suñu laa daawut ab ay bis nga xam ne du fa ñëw du xaar daanaka da am ñetti weer yoo xam ñu yënd suufa alxames nag la fa daa ñëw moom day dàkk bis yoo xam ne du jàngale digganteem suñu saa yu itam noonu daaw fa jukk suñu saa yu itam daaw jàpp naa ne fi ëpp fu mu ëpp fu muy dem ci kër yi kër yi laa ko teg hmm. waaye noonu la noonu la soxna May daa ñë soxna moom yi moom it daa rek fa la dëkkoon soxna May noona noonu soxna benn gaabu noonu Cheikh Mamadou Mourtala noonu njabootam fa la fa doon fa daa ñëw di ko seet si xool ñoom ñëpp. ku ci ne xam ne li tool bi mu nekk yow la ci nekkal sëñ bi nag moom moom dafa yàgg danaa wax ne moom ba nuy jàngalan meloon noonu ba muy nekk tundoo di la ko daa gane si daana wax daana ko gane si léeg-léeg bu dikkee li mu ko ganelee mooy caaf gerte rek la ko daa ganelee booba wax boobu jamono neexut muy ku amoonu doylu ca mën a muñ ndax bi samp daara ji 1945 ba réew mi na xari na dara amut mu xëy xëy dogoon ne bàyyi na tukki toog ak i jafe-jafem wuteetu dara fenn lu mu am jàpp ca ak mbo ak ak ak i dongaam yor mbooloom boole ci bëgg leen a jàngal bëgg leen a yar mu loolu ko amul jëm amoo ak dogu doo ko mën ndax boobu fekk dara tukki daa dox réew mi fi ne bari na foo ko masaa wax rek mu doon wax garab nga nekk ci penc ma wala bara la meloon dox lu yàgg daa xam xam réew mi lool ni muy toog toog dëkk boo ko wax mu wax la fa ay mandal waaye daa bi Cheikh Moustapha Karim génne àdduna fekk ko fi ba dikkee leneen fas yéene du gën a génnaatu Tuubaa ba ni mu fi jógee di nag taxawal daara jooju rek jàngale rek ak yar amul benn liggéey yëngatu àdduna yëpp ci man nekk lépp fukki at ak juróom-ñaar am naa ko sin bu mosuma faa gis nit àdduna yi du du président du ministre gouverneur laa fa am gis moo daa def ñëw fa sax ba mu fa ñëwee ban foto ko ca la ko tere man foto boobu ngis waxoon dafaa ñëwoon am fata ñu fata ko ci ca la ne na nangoo tur mu ñëw fa benn autorité boo xam ne gisaat naa ko ba dama fa nekk surtout amut muy ku fonkoon jàkka ja waxtu wi waxtu yëpp moo ko jiite waxtu yëpp moo ko daa jiite ci lay jiital ñëpp ñu julli jiitam bi mu demee ba indi fi seen ibi ba doon la bàyyi seen ibi jiite waaye teewul day julli ci jàkka ja moom waxtu moom ci jumaa jël ko jàkka jël ko jëli waxtu yëpp waxtu aju bi tam du ajuma rek la xam ne suñu sooy bi dana gën diggante soos day neex ci yow lool ndax da nga am liberté bu daa julli ji day wut nit ku koo xam day toog ci penc ma di xool oto bi di ngeen liberté di ngeen soos boo nee boo séenee ma nga ñëw ñëpp gaaw duggaat ci kër gi toogaat kenn du ko romal loxo neen maanaam boo masaa di masaa toog ci ëtt bi sax ngay jëm fenn ngay jëm ci kees gee ba ko romb da yor ab téere wala sat la wala dara waax waax mu tàng mel na ku nekk ci dara waaye no loxo neen nangu bu lay séen di def la dara boo ko yoroog son loxo neen di def du mu fàttali sa ne def nangam mm-hmm. nangutoon nekk ci loxo neen ngay jàng baa ngay bind guddi gi itam daa doo ngay ñu def sikkar timis ba gee sikarullah la ñuy def ndax bañ bañ ko neenal waxtu dara suñu soxla amutoon nag ay jàngi maraax ak jàngi jël mu amuñu ko moom moom daal jël njël ngay yow tàmbalee jàng waaw boo xëyee jàng bet tari ko bu bari jeexee mu tàmbalee nafar yi bu fekkee ku ne xam xel nga ku mën a jàng nga xam ne yow teree wari jeexee nga mën a jàng tere sa nafar ñu teg si bind loo mën di bind nga tay ko bu mi di jutoon nga mokkal na yaa ma soob subaati noonu la noonu la noonu la jàngale moom waaye bokk def ñu xaaj ne da ngay jàng lii bu timis ngay jàng si wala bu tisbaar noonu la noonu la système bi wala yoroon moom waaye booy waaye booy mokkal alxuraan booy wàcce na di mokkal alxuraan ndax bala ngaa wàcc dana fekk ngay tari juróomi sib ñaar génn xel ñaar moo tax booy wàcc rek daa tari juróomi sib ngay def ci saasa mu dem bu dee saa def juróom-ñaari sëg gën a wàll fii nag léeg-léeg nga la jël bind roba loolu <laughs> loolu moom danay jaxal sax ngoog waaye foofu moom am gu am na ñaari bind jël bind moom dana waaye boo wàccee moom si ngay boo boo dellusiwaatee mën na jël juróom-ñaari si boo jël mën na jël fukki si fukki si nag mën nga cee yàgg ba yàgg nga yokk soo ko tàmbalee beq beq mi itam day yàgg ndax xam nga ba dee beq sumul kenn xam koy yàgg te léegi moom ñaari yoon waaw mu ne ba rafetut ba rafetut nga beqwaat soo ko bind kamil kamil itam lu mu bon na ko bind ñetti yoon foofu foo nekk rek ko ñetti yoon kenn du jàng moom bala ngaa dal xam-xam mooy da ngay da ngay dem ba mokk alxuraan daanaka boo demee bay jàng juróom tere juróomi mu taal daal la sa saar jamono yi ngay beq rek ngay bind kay noonu yaa ngi jàng xam-xam kon boo bind kay rek nga egg si ay Ibnu Malik ak ay Laamatu Afal noonu dana jàng leen waaye moom alxuraan képp ngay jàng noonu daa jàng leen kon noonu la daa doxale ay mbiram ku bokk fonkoon ak bokk la lool boole nit ñu bokk da ko daan neex lool lool ak di nemm ko ay bokkam ku fa masaa ñëw ku ne ci bokk yi day bég lool ubbi la boppam lool xajal la ci boppam lool noonu la daa fonkoon ne ku warmaaloon ñëpp la gone ak daf ñun gone yi nga xam ne ko yi bu dee jàngal jamono yi ngay jàngal moom gaynde lay doon waaye bis ba mokkale day teg ci wetam di kaf ak yow jàpp sam nopp man dema ba piriyaan booba piriyaan laa toog li ci pare daa toog sa tànk yi di kepp sa tànk yi ci sa sa bakkan wala sa nopp di faw yow nga xam nga xam ne nga xam la ne waaw kay nga mën ci moom noonu laa def saa boo mokkalee alxuraan saa boo taree rek day daa teg fetam boo nee nag koo xam ne nangu ngaa jàng moom da def xaritam def def la wéttal mm-hmm. bëgg lislaam lool lool lool bëgg sëñ Tuubaa lool tam nag lool gëm sëñ bi doon tay bu wér magam yépp mu def leen ay kilifa bu wér du def dara ca yëguñ ko ca tàggu leen ci mboolem ñi ñi mbokkal sëñ Tuubaa bàyyi leen ak bu baax bàyyi leen xel bu baax a baax góor ak jigéen nag kooku ma saa ñëw ku ne day neex ñun bu sëñ bu nee soxna ma ñëw na wala moom yi wala maam xarim nga xam ne boobaa moom day teg fee daara ji nekk ci ñoom noonu la bindoon bàyyi aajum yëpp bëgg leen lool sopp leen lool lool ku bañoon ak réer la sañoon ñëpp jàng moo tax mu daa indi suñu bi di ko jàngale di jëli suñu asan ndax suñu yu boobu koor du jàng du jàngale waaye bu koor jotee day jëli suñu asan gere mu ñëw di jàngale foofu ñu daa jàngale itam day bëgg ñu am xam di bind danaa daa digal bu bind dara indi dara yut ko yut ko sëñ bi wala am na demoon soxna ci jàkka ji dañuy def foo xam ne ñoom ñëpp dañuy taxaw foofu ku ne bind dara jàng ko ci kanam ñëpp noonu laa def maa ngi fàttaliku sax man mii ci wujj ji si la yéen ma ne demal na Sidi Mbacke na bind dama bindal dara ma bind ko mu bind boobu yaakaar ci Tuuba dëkk bi laa ko bindoon bi na ne ne ko na ma mu bind ko ci sëñ bi mu waxaar ma mu bind ko ci yoonu mu mu ne boo ne ko bind ci bu bind bu bind ci yooyu nag <laughs> mu ne man mu fekk waaye dafa njëkk dama bi laa mu Tuuba yi sama dëkk sëñ Tuuba mu ne mu soxis bi la yónni desam bu ci ne ne boo ko ne bu bindat na na seet la neen nag na def moo moo dox benn bokkut ak yu muy indil nga xam da day tàggat ngir bëgg ngay waaw waaw ngoog ngoog noonu la bindoon bëgg xam-xam lool bëgg ko jub lool bañ ko bay tappale lool daara xool ba xam ne yu moom du dara daana ko def bàyyi fii ab tàngal wala passe yónni la xool ba xam ko jub nga ko jubut sànni fee ñaar sàngal wala ñaar parce teg ko fa yónni la ci néeg ba nga bari ab dong bu bëgg rek moom la la romb rek waaye bokk laa yow ma xam ne yow juboo doo ci dara nag day nag rakkal la gis gis lu ñu jariñ waaw lu jariñ nga doonee mag ba gis bu bu bu lay recevoir nga xam ne ku am cofee la ngi ku la ku la bëggaloon lu baax rek la ku la bëggoon teg ci yoon képp a ngi nii mm-hmm. nga xam ne noonu la bëggoon ku jub bëggut ku dëng bëggut kuy njàlloo moomut bëgg lool ko sawar ci ab njàngum alxuraan ak ku sawar xam-xam loolu day moom ku doon dalee daal fonk def la xaritam mm-hmm. bëgg ku mën a bind alxuraan loolu nag moom moo mën bind moom ndax mbind moom yàllaa def mu bëgg ko moom bëgg ko ko ko daanaka yoon wi sax ñi si mbind mbind yëpp dana ko daa waxtaane Cheikh Moustapha ak sëñ Massamba ak bind bind da nga ma koy nuyoo mi moom kaa mënoon bind ma dikk na ko Matar Aminti Ndiaye mu ma daa bëgg siyaare mu ne ba demee ne ko ak mën a bind ma ak mën a bind moo suñu bàkk faa yemee de ñu mën a bind leen hmm. xam noonu noonu la xamee woon ñu mën a bind lool lool lépp waaw daanaka lu bari ci yoon bi sax da ko daa dote daa am carnet boo xam ne ñu juddoo li xew yépp yëpp da ko daa bind kan suñ fallu daanu wax na yu bari moo ko yore waaye judd ñun ñi ñëpp yaakaar naa kurti ko ndax moom daa farloon ci loolu judd ngénte lu mu dem ak da koy bind wax dat ba ak yi xew ci yoonu mu biir ci yëpp da ko daa am rési bu mu ko xam ne ci la koy def noonu la ko daal di fonkee naka nit ku bëggoon kii bàyyam ginnaaw yàlla suñ suñ sooy boo fa bàyyi moo ko téye bi faal jógee Mbàkke ten ubbi fii nag gën a dispensaire jamono suñu blaat ci la suñu sooy bu nag mu ñëw fii hmm. ngir moom waaru médecine da ko ñoroon lool gis nga sax téere mi li ciy bind ci wax lu am solo ak téereem bu mag boobu nga xam ne ba fi mu ne ñi jàng ñëpp mën nañ ci jàng ndax war na loo xam ne mën ngaa jàng ba jeexal téer yi soo ko gis xaw boo delloo ci téereem rek da nga koy gis téere bi xortu ay ni da ko njëkk na ko bind nag bu yàgg da koy yokkaat nag ba mu njëkk a bind tollutoon nii boobu la boobu la gënoon tàng nag <laughs> ginnaaw bi ginnaaw bi da ko bindaat na ko yokkaat yokkaat yokkaat ko gudd ak yeneen téere yu bari sax yu bari yoo xam ne ñaan yu am solo ci am nag da ci am yoon sama xamul tax tasaaroo waaye téere yu am solo la hmm. ab bindkat la woon waaw daa bëggoon xam-xam moom daa bëggoon xam-xam da borom xam-xam yi ku ma saa ñëw da ngay toog ak moom ni ñu toogee lay toog ne san toog suuf di discuter bëgg leen lool sëñ Balaay Busa sëñ Asan Busa ñëpp ay xaaritam lan lu daleen daa di gëstu di waxtaan ak ñoom ab sër sër ku xamoon réew mi sam la daa xam histoire xam taarixu réew mi xam xam nit ñi xam réew mi ni mu tëddee ko xamoon lool ndax yàlla ko def mu mën a laaj hmm. lu ne da koy laaj boo ko xamul sax mën naa trompé ndax dana xam dara ba dana ko laaj war hmm. sax ab gëstukat la woon li mu xam bari lool muy ko amoon yërmande lool ci doomu aadama yi ci dimbale leen mu in saa bu xëyee am na loo xam da ko daa dimbale ñi fay ñëw di sàkku ndimbal noonu waaye fonkoon bokk yëpp nag waaye ñun daal ñëpp ko war a sant ndax am na jamono yoo xam ne moom sët Sëriñ Tuubaa yëpp du ma ne ñëpp nga fa ñu ña nga mu yor ñu ca booba jamono neexut waaye ku wér di moo lay faj faj bu weeru bu kori dikkee ak tabaski mboolem daara ji dana leen xotti lu mbubb wala ñoo bëri ñëpp lay jox mbubb ñoo bàyyi seen kër bu kori ak tabaski ak magga ñetti ñetti feet yéen daa feet ñoo fa nekk ñoo fa nekkoon ñëpp moom ñëpp ñëpp moo ko moo ko yoroon moo ko yoroon kenn ku fa indi sa doom daa fa indi dara amutoon lépp moo ko yoroon te boobu jamono jamono neexut ci feet yi itam dañuy jël yére yi ngay ko dem di tànn ba ba yem ci yow ba ñëpp ëpp mosul yoone dell kër ga nag kenn du génn moom kees googu njëkk googu bu la sëñ bi am ngay duma ndax ab taxawal la. <laughs> ab taxawal la ko tuddee ma la ko tuddee seen naa la ca ngay taxawal la yow <laughs> hmm. kenn du fi buntu kër gi sax bu kër moom doon jaar moom saa génn xamal ne moom ca kaw sànq bi nga jaar baa nga bëtt waaye buntu moom. Hmm. ke ko yor doon may mukk nga jaar fa ko tëj jamono yi ne dëkk dëkk Tuubaa gi ak kese bu xaay boo màggal ngay ñëw ci kër gi waaw ñett dafa jaar mukk boo ñibbee kori bala ngaa dikkaat tabaski ba tëbët màggal ba màggal ba màggam lu yàgg màggal ba kori kori doo jaar ci kër yi sañ doo ko sañ hmm. waaw doo ko fii sax boo ko diggee moom sëñ bi daal lay delloo génn na firnde jële ji la ko jaral moo tax kër gi dawul génn dem fenn moom itam yor lampam bu leer boo xam ne léeg-léeg xam yi day yëg seng yi waaye boo bu yi neex la yoo xam ne bu seng bu yëngu rek bu ne tayee boo nee sang kaw sanga mu seen la <laughs> man tam daa mel ne ku ma doon xàmmee itam loolu ak ko wax tànk tànk daara yi bari bari mujj kër gi booy dox da ngay samp <laughs> boo boo bëggee foo wër dem te kër ga booy jaar da ngay samp say tànk ndax boo sa tànk tegu moom dana xam ne yaa fi jaar hmm. Hmm. waaw moo tax gars yi itam samp seeni tànk ak wala ngay dox di ko di ko far hmm. te kër gi daa bari fu muy ay maraax fu mu fu mën a fu mën a seroñe tabax boobu tabaxam boobu ay constat yi fi nekk doo xam fu mu fi taxawee kees yi itam bu ci ne am na am na fa bën bën yoo xam ne yoo fa bàyyi yoo xam ne ca la yére te doo xam fu mu fa tolle moo tax daanaka kër gi foo ci dox fa rek da ngay mel ne yaa ngi ci dansé daanaka moom la ngoog daanaka caméra ndax foo jaar rek xamoo ba xam sëñ baa ngi lay séen am séenul ndax ah, boobu tabax bi côté bi am na ay cholestérol côté bi am cholestérol te doo xam doo xam fu mu nekk toll la bu dee ci biir doo xam fu mu toll bu dee ci yaa ngi ci biti itam kër gi daanaka da koy wër gi taxaw fii cinq minutes taxaw fii cinq di wër booba dëkk bi tabax bi daa booba seng xam nga daa gàtt bu dee bu taxawee ci mbaarum toox moomu mu ne tay booba mbeddum mbeddum mag moom da ngay séen ba ca kaw bu nekk tàyyi nii itam ngay seen fu mu ci taal te boobu loo wax ba kàddu gi lu mu xam ne mu déglu mu déglu xam ne daal moom dundam bépp ci sëriñ la leen dongo yi da nga naan kii du tal boppam gone yi ñu ngi ci nekk biir suñ daara yi itam néeg yi da ngay jékki mu ne jox ci mu nekk rek wala kees gi mu jékki-jékki ne jox ci kees waaye bi mu demee sax mooy bi mu demee ba nga xam ne sax moom saytootul lépp dëgg waaye teewut noonu laa daa def day bette day mu nit wut nit koo xam ne si itam da ko fa nekkal sa gars yi duñ la xam eh, loolu moom moom nga contrôle moom daal moom neexutoon a mucc <laughs> ku amoon ak dogg ci mbir la itam nag dong dong bu bu jéem a të ak bu dër bopp moom loo ko jaarale ko jaarale moom nekk ci yow du la bàyyee kenn nag moom yor la boppam ba keroog yi gis yow bunt noonu laa def moom def itam yëpp defar nit daal defar nit da ko jaroon war a baax daal bëgg a nekk saan moom dana fëtti ko joxlante yow ba ba nga baax waaw loolu loolu muy liggéey ba am solo boo xam ne la bindoo woon ku wisaare xam-xam lay tam ci àdduna wisaare xam-xam mooy mooy sax ñun ñëpp rek dana am ko néew te ñun bëggoon ci ñun sax amul ko ndax daa bëggoon ñu nit yi xam ñu fonk ko xam xëy na dama ci bëggoon waaye teewul leen leen leen am nag sant nañ ci yàlla bu baax sant yàlla bu baax ndax bu toon bu dul ko moom mm, du nu mel nii te gis nañ ñu bari ñu fa jarut nga xam ne wax yàlla ñun sant nañ yàlla ci jaar gën fa ndax defar na defar na suñuy xol defar na suñu xel ba fi ne dara jaaxaluñu dara réytu ñun ndax ni mu tolloon ba noppi wàccoon ak tolloon ñun suñu sooy bu da mosuma gis mu tëdd ci mu nekk bu tàngee ci ëtt bi lay fanaan bu seddee ci mbaar mi waaye du tëdd ci mukk musuma ko gis man te yàlla dogal na man daanaa ko fa naa ko fanaan naa ko bés fanaan naa ko ëpp waaye ci bitti bitti bitti lay toog lay fanaan ba bu nafila li muy nafila ba noppi tëddaat bu njël jot mu jugaat defaat ay nafilaam ak li muy wér ku fonkoon wér la nga moom lool ku fonkoon wér ngoon geeg guddi gi moom fonkoon wér lool fonkoon jàngoo xaar moom mosu ko tardé moom suba moom bi mu daa def moom di daara ji xat-xat ak li mu daa jàngale jàngale moom am na heure boo xam bu day dem fee moom jël kabiram jàng fa ba noppi soo jël si waat ci jàngale mi xax eh, eh, la ci ci ci moom suñ lépp day suñ soñ bu ñun moo nu yar moo nu jàngal moo sampal kër moo ñu tudd kon nag kenn ëppalewuñ ci moom nit ku nit ku ku liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci njabootam gi daal bu wér a wér ndax mboolem ña fa jaar ku ne ku ci ne ba nga delloo fa nga jóge am na loo doon fa nga jóge te moo ko def ci yow walla nag kon mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu ngi koy sant waaye nag yemutoon ci njabootu maanaam seex si dama ko mënut lim waaye ñëpp ñëpp ñëpp fa jaar ay ca jamono yi ay téeméeri nit ñoo fa nekk ak i juróom-ñaar fukki nit ñoo ñaaree nekk kër ga ginnaaw bi nag la sëñ gi ñëw ñu jox ko dong yu bare ñu daal di yóbbu feece Madiana foofu ñu ko wax ñànk ubbi fa daara dafa yóbbu ñu bari ñu tën ñu tën jamono yi sax ñu të mbokk yi nga xam ne dañoo xaw a të te boobu amatu jot gi mu ko bëgg a saytoo mu mu daara si si sëñ Gueye yóbbu fa ginnaaw ba indi fa Abdou Khadir Gueye ak suñu Amar Sey ñëpp moo leen fi ngir ñu jàngale alxuraan ñu ko ñoom Moustapha ñëpp ñu jàngalekat ne mooy indi woon waaye teewul nag daal ci kër gi moom Moustapha Moustapha kii Moustapha taxaw ñu demee ba génne ko foofu ci bitti suñ den bosa moo ko yore foofu nag ba nëgee ni moo ko yor waaye vraiment sant nañ ko baax sant nañ ko baax a baax man sëñ Jili Abdoulaye moo moo ma yoroon maag sëñ Abdou Samad mi ak sëñ Bache moom sëñ Saliou ak sëñ Abib moom sëñ du Mbar yaakaar ñun ñii la njëkk a tàmbalee jàngale moom sëñ Jili ak Abo Mbacke moom sëñ Abdou Lahat ginnaaw ba Abo Jabe ma sëñ ma sëñ waroon Jabe noonu lay def ba yokk di yokk di yokk. lool waaye yàlla yàlla dimbali na sama xas yi mujj di jàng maa ko bind sant naa ci baax ndax bi moom itam moo dikk jox ma ab liste boobu ñibbisi naa sax moom ko ah, ah, bindal ko man man ma bind xanaa damaa bëgg a dimbali rek mu jox ma ab liste bind ko ak kayit gu wert yàlla mujj ma bi yóbbu ko mu joxaat ma ab liste boole ci asmaa al badri ma dikk ne ko ah sama bët dama dama dama dama dama ragal lool wax dama dégg ñoon da daa diis man ma dem jox la ci ndigal nga bind ko nga bind ko yooyu yaakaar naa jàpp naa jàpp naa ne ci mujj jàng si la bokkoon fonk moom daa fonk jàngum xasida lool sax lool waxtu yëpp la ko jàng yooyu yor beeg ngoon gi. yëpp nag lu bari nag. takkatuma ko nag maa ngi liste maa ngi liste bari am na war xam naa xam naa ci benn ay war axat kaam naag laxat jaagu ma ca de xam naa ne ak xanak bis rek anseer ma faa jaat ma raxat yow ca xam naa ne moom waaye ak asmaa al badri Ismaïl Badin kon moom daana ko jàng. daana moom mujj la ko jàng moom daana jàng moom moo jox téere moo ko sottee sax moo moo boo sax ah, bindee sax ma nit daa tuma baaw de <laughs> waaye ku fonkoon njàngum xasida la man nag fonkoon na lool moom da mm, ko daa jàngalu këram moo ko sindi guddi gu jot seetlu naa ne ku ku sanc kër itam daan la yebal daa mag ñu ko daa jàng xam daan la yebal sa yebal sa ñu jàngale ko mboolem ko loolu fas yéene am na kuréel boo xam ne ay mag lañ woon Ibrahima ñaan ñoom ak saa kuy gis naa ne daan la yebal ñoom ñoom jàngal la fa kuréel loolu fas yéene moom waaw daa xam nga daa daajoo ko neexoon nag moom jàngat xas sim da jàng ko lool xam nga kii mi ko def ñëpp guddi man na ko ma naan siise fàtt naa ko kooku itam bu yàgg daana fa jàng sindi deeg xas sa guddi waaye xasida moom tubarkàlla fonkoon na ko lool lool ba toolee ci digg njàngale wax fa na amatuñ jot waaw moom waaw waaye mujj moom bu ko fonk lool sax yëpp da ngay da wër ki da nga fekk mu jàng ba tey lool moom daana woo góor Cheikh Diané moom ci wetam donc suñ bay jaxte mag la woon mokkal way waxe laa boo mu di ko jàngal léeg-léeg sax mu yebal woo woo yi bu dee yi nga xam ne da ci yaddaate ak yooyu tere nelaw guddi yooyu mu dégg ñu mu jàngal ñu ko ñu koy dégg mm. nga nga yi nga xam ne dañuy tërbie waaye ku fonkoon ku ci am boobam suñ bay sax xewagul nii waaye moom yàgg na ko fonk moom moom dafa jëkk da ko daa jàngulu di ko déglu ko fonk ay waayam lool mu fonk la moom sax suñu laa jàngaloo ko nii ko daa tura jànge waaye bàyyi jaane moom yi la ko daa jàngaloo kooku ba Cheikh Diagne mu rëkk foofu ci atam. suñ mbay jaxate ko tërbiye jàng bu neex la ko daa defal sax léegi suba teel bu ñuy jàng ko ay yow miy nelaw guddi yooyu yëpp daan daan na ko jàngaloo suñ soo bu géej la boo xam ne géej gu jeex la te ñu ne suñ dund bépp nag ci foofa ko defee seen du xaalis moom li xam ci moom bëriwul de nga xam ci ndax koo xam ne ba ngay juróom-ñaar nga fa jógee bi dellusiwaatee amuñu amuñu moom ñeenti at juróomi at mu jóge fi suñu dund bépp sëriñ Tuubaa lañ ko def foofu fa lañ defe lépp fa lañ jànge lépp bu dee xam-xam fa lañ ko jànge bu dee alxuraan fa lañ ko jànge fa lañ bind kaamil yi ñu bind yëpp kon ñun foofa lañ dëkk fii dañ fi gane sere waaye sëriñ Tuubaa bi lañ dëkk bi nga xamee ne ñu ngi ñu ngi nekk seen ko ba jàng ba eggal sëñ Abdou Khadre nangu si suñu sawit ne duñ delloo nekk bolokaas ba foofu bolokaas foofu <laughs> ca defatun fa dara yàgg nag suñu wax ñibbi leen suñ bi itam wax jël si leen am ba mun ñu yebal mu yebal ñu suñu dem leen suñu yib waxtaan ak moom suñu yib nag ak bër la boobu sax suñu waxtaan ak ñoom ci noonu xam ne bu ngeen demee daal jëru ngeen wax suñu bi dara waaye ma ngeen toog rek waaw ndax sëñ moom du wax ngeen dem waaye bu ngeen demee rek déedéet ngeen wax seen affaire ñibbisi na ñibbi nañ waaye bu ngeen toogee itam naa ne du wax dara. ma ne di ko comme def ban bëree tàggoowun sa bi dëgg naa bëgg ko ko dama ci bëggoon ku ma dénk rek bindal ma dara ma ko gis naa ne bu njëkk ña daa wàcc dañ daa bindal dara hmm. wax ko mu ne ma jëru ko de ma ngeen dem nekke woon fii ngeen wéy ca sëñ bi ci jaamu yàlla ca ba bu leen bu leen ay tabax bàyyi oto bàyyi yëri rafet itteel nee neen seen jaamu yàlla itteel ak sëriñ bi te fexe ba lii seen ndam mooy nit nit nit dara nit dal nit ca Ndakaaru wala Casamance xelam ne yarar ci yow yaakaar ne bu la gisee loolu yàlla saafara neen loolu mooy seen ndam te loolu nag leen koy mooy sax ci njub ak jàmm yàlla waaye ay tabax yu rafet ak oto yi rafet ak soxna yi rafet ak mbubb yi rafet du seen ndam seen ndam daal mooy nit nekk fu sori dara jot ko xelam ne ko diw sàngam moo du ma du ma gisoon bu ma ñaanalee sama aji dana fayu ci loola nag leen koy may moom jàmm sax ci njub ak jàmm yàlla ñu ngi bëgg am bu baax di leen sant ci seen tànk yi nag lu am solo la def da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin